Euh, célibataire moom loo neex nga yàq ko ko te dara du la ci fekk alors Mbaye Assane ci moom sax laay ñëw euh, mi ngi koy wax léegi Ibrahima Anne euh, tey ji taxawaay opposition bi parce que bu nekkee ñoom ñi nga xamante ni voilà le conseil constitutionnel nangu na ni ñoom ñoo wax a dem ci élection présidentielle dañuy toog di seetaan président bi ak ay gàngooram di def lu leen neex est-ce que quelque part aussi lu ñu leen teg du dagan mais mais bu sonn xam nga xam nga parfois tu te poses la question en termes de leadership. Oui. parce que drame bi ñu dund aussi bu ñu defee diagnostic un peu contexte bi ñu nekkoon au temps de Wade on avait un président qui s'appelait Abdoulaye Wade quel que soit le reproche boo ko mën ci def ou les reproches he was gentleman Abdoulaye Wade était un gentleman ak lu ko mën reprocher Abdoulaye Wade avait ce sens si intellectuel intellectuel de se dire lii lii quand même a nekk. Mm. parce que les lois disent les textes disent. loolu tam dafa am solo de. te Sénégal Sénégal nu wax ko fii mm. bu nuy falati président nañuy fal ka xam ni benn ragal na suñu borom c'est important nañuy fal ka nga xam ni mm-hmm. mm-hmm. am na ay bokk am ay bokk dafa baax de mm-hmm. xulil bàyyi ma taa na am ay bokk waaw xulil ba baax am ay bokk Pape Sarr nga xool ko nekk sa bokk la. am na loo xam ne bu ma ko naree def Pape dina ma woo ci ruq ne ma sëñ bi Baye Assane ñun suñu askan xamuñu lii bal si dugg c'est capital moo tax président Macky Sall naka ay bokkam woo waxtaan ak moom kilifa yi bokk yi fan la Gédé wala du Gédé ndulumaaji ndulumaaji ndulumaaji Fatick ndulumaaji moom du fa dugg ndulumaaji du dugg ndulumaaji moom du fa dugg de lu tax moom de du fa dugg de. lu tax du fa dugg. ñu xam ne tax du fa la tax bu rafet. te bala yoon ba eh, muy daa ñëw ba foofu jàdd. kaka fa tere nag tegoo ko si yoon. non dañuy non dans la on dit foofu ku bëgg a nguur. wala ku nekk ci nguur du du fa fanaan quoi. Mm-hmm. continué ku bëgg nguur wala wala eh. boo fa dëggee da waaw nga mën nga mën a a des villages comme ça au Fouta. Mm. bon maintenant je sais pas. est nanu woo waa Ndulu Maaji <laughs> ne leen kaay leen waxtaan ak njaboot gi nu waxtaan loolooy dëgg nag mm. président kat dafa bokk fu baax baa bokkee fu baax fu mel ni nuloo maaji waa nuloo maaji dana war a ñëw toog war la wër la ne la nun suñu askan xamuñu yii kat nag mm. nan ko doxal mu rafet loolooy dëgg mm-hmm. ak bokk yi yi nekk ci Fuuta ak ñëpp nañ ñëw toog nag ko sëñ bi nun la rafet la nu xam Thierno Souleymane Baal ca la rafet la daan dox la révolution la grande organisation du du pinc la de haute démocratie mm-hmm. démocratie fii la njëkk la mm-hmm. république lébu la révolution torodo mm-hmm. baa nekkee torodo nag da xam na xam na nga war a doxale 1876 oui baa nekkee torodo da nga war a xam nu ngaa doxale am noo war a doxale te président torodo la am na yoo xam mënu kaa def am na yoo xam ni. jekku si yaa ngi koy baab de non non baab fan. ma ne njëkk bi. nun nun kaa waxee ci pulaar wax ma ci pulaar cooro de. njëkk mais je suis d'une famille guerrière. am yow yow. ceddo ceddo mais ceddo est-ce que xam nga ceddo boo ko tegee ceddo nangul gàcce day xaru. ceddo ga xaroo ko gënal gàcca mm-hmm. gis nga soldat américain bi la la mu def ne moo tax ceddu ceddu américain est-ce que ceddo bu la nee bu la nee vingt heures ma jox la xaalis vingt heures mu jox la xaalis bu la ko joxul rey boppam mm-hmm. gëm-gëm la comme nag président il est issu d'une famille guerrière daa am yoo xam ne jekkul ba pare sax bu ñu waxee dëgg rek te al tax mais le président Macky Sall est-ce que xam ngeen ni il est quoi ingénieur fa ka neexul u dem la ka neex fa ka neex mu taxaw teg compétence mais nag sama benn bàyyi nee na ma bàyyi Assane nguur biir Afrique moo dàq doon président Amérique mhm. ma lu tax mu ne ma biir Afrique président bi buur la la ko neexu def naka neexu defee ko gars yi dañ kaa sujootal alors que moom moo war a sujootal askan bi nous y avons tout donné sawaay ka ñu jox 2012 ba fi ñu toll nii te du 2012 rek la tàmbali le président Macky Sall vit avec le Sénégal et les Sénégalais en termes de république depuis 2000 2002 2002 bi ñu kaa def ministre de l'hydraulique mu départ nag dugg yàlla ubbi buntu xéwal yi sawaay baa doyalul fi mu nekk nii kan moo dee doyal waaye nag nee na doyal naa sëkk dafa sonn sax fu ne nii bugguma sax yàlla garaaw wax loo nag bugguma sax fekkee élection yi ah yàlla naka jàmm rek di fekk moom ak fa mu nekk ay jabootam waaye bëgg man nag boo waxee dëgg te yàlla rek tax président oui bi du saw date ala ñëw date sanu dataakat ah kepp kepp kepp kepp kepp kepp kepp kepp nanu jox suñu dat ñaw date ñaw dat nag te date bi du la 2 juin la 2 juin baaxul na conseil constitutionnel balaa la 2 avril waa léegi léegi nag kon na conseil constitutionnel jël les mesures idoines defal ko communiqué ne ko non tey jii nii tey tey tey conseil bi dafa war a wax ak sénégalais yi wax ak président ne ko sëñ bi lañ la waxoon ci lañ nekk date wi balaa le 2 avril neel le 17 mars. Mhm. wala le cinq mars. Mhm. lan moo fi ne. léegi nag bu fekkee da ngaa bëgg dugal Karim. dugal Ousmane Sonko wax ko mu leer. Mhm. ne conseil conseil man kat il faut que ma def il faut nga defal ma dérogation. ba ko mënee mu defal la ko ba ko mënul ñu xam ne ko sauf que nag mënatu ko. Mhm. ce n'est plus possible. Mhm. et képp koo xam ne ah ngay wax si kaw di yuuxu tey dox ci suuf leneen itam xamal ne amal nga ak Sénégal. Pape Sané taxawaayu opposition bi. surtout ñi nga xamante ni tey jii ñoom la conseil constitutionnel nangu ni que élection bu amoon ñoom ñoo ci war a participer. tout à fait mais balaa ma kii tontu foofu rek ma wax ma eggale lii Pa Pa Pa Pa Baye Assane daa daa doon wax rek. Uh-huh. docteur yu gën a mag Sénégal. oui docteur yu gën a mag Sénégal yu gën a mag tugal. ñoom nee nañu opération bu nekk def nañ ko ci àddina. Uh-huh. waaye opération séparé président Sénégal ak fauteuil présidentiel. Uh-huh. nee na ñoom mosuñu ko mun. ça veut dire ce que ça veut dire. voilà kon metti na. metti na trop. Mhm. nee nañu réussir nañu opération yëpp tàqale nañ ñaari bé ñaari bébé siamois. siamois lépp. waaye président ba toog ci fauteuil ñu nar ko opéré dindi fauteuil bi président bi dem. mu laaj mosuñu ko mën bon. opposant yi nag du man du mën a opposant dama naa candidat yi. Mhm. ñoom nag comme constitution moo leen jox sañ-sañ ni que ñoom dañu war a concourir ñëw daganal baatu askan bi. wax fa dëgg yàlla bu ñu ñàkkee fayda. Ah, ah. bu ñu ñàkkee fayda ba ñu ne leen noonu yëpp dañ koy teg fii ci suuf ngeen recommencé waat processus bi. Mm-hmm. ñoom ñoo ñàkk fayda ñoom ñoo war sénégalais yi. parce que nag conseil constitutionnel la mu waroon def def na ko. Mm-hmm. sénégalais yi nga xam ne ñoo leen doon parrainé la ñu waroon def def nañ ko. Mm-hmm. li ci des kay mooy sumb bëri mu jeex tàkk. dama ne waxtu bii ñu nekk nii. du kàddu président de la république. moom moo intéressé sénégalais yi xam nga lu intéressé sénégalais mooy que ndax président. la ko conseil constitutionnel sant. dana ko def. wala du ko def. Mhm. waaye bëgg-bëgg président ñun wees nañ ko sa à dire fu mu ne nii ay bëgg-bëgg président. oui c'est vrai li wax dëgg nañ ko deexal waaye ay bëgg-bëggam ñun wees nañ ko. fu mu ne nii ci bëgg-bëgg ax ci dogalu conseil constitutionnel nag nañ nekk. Mhm. léegi nag candidat yi. ñoom ñoo war a jëmmal seen bopp ah. dëggal seen bopp. waaw jëmmal seen bopp dëggal seen bopp. buñ fi toogee nag bañ leen recalé waat na leen dem leen ngeen bokkaat ci 268 yi. ñoom ñii 19 yi nga xam ne ñoo ci jàll. Mhm. boo moytul kenn wala ñaar ñoo ci jàll ñeneen ñi ñu jàll. <laughs> ok. Mhm. Khadiba nee na PMD may ma Pa Assane ma sëyal ko xam na Euh, boo ñëwee ci Walf rek ñu may la ko Paasan euh, moom duñu la laaj lu bëri boo ñëwee rek euh, ñu may la ko di ko jaajëfal bu baax a baax moom Khadiba ak Cheikh yow yow Pape Pape Pape Baye Matar da ngay màkkaroo léegi ci rajo waaw <laughs> yooyu gën a ndaw ci may dem ak Cheikh Fall yaam jaajëfal bu baax a baax ñu doon topp ci page YouTube bu Walfadjri rek ñu doon topp ci 99 point 0 ñu tëj ak Baye Assane Seck gars yi ñu ngi laaj son. nee nañ sa sarab lii ak euh, date bi nga def ko musique euh, gars yi di ko partagé parce que dal na daal. président jox nu ñëw date. yeggali déedéet déedéet déedéet yow kay di ko wax moom kon ka émission dootu yow euh, kii lu mu tudd Pape Sané yaa koy awu acca bismillah. du saw date. Pape ñëw data. Ibrahima ah jox ñu ñëw date.